jëlee nañ ci abi hurayrata yal na ko yàlla gërëm mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ni képp ku woor weeru koor ci gëm yàlla ak ci sàkku dees na ko jéggal mboolem lu mu jiital ci ay bakkaaram waaye képp ko taxaw guddik laylatul qadr ci gëm yàlla ak ci sàkku des na ko jéggal mboolem lu mu jiitaloon ci ay bakkaaram xadis bi buxaari yu ak muslim ñoo ko solo